abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak conférence de presse bi nguur gi gonto woon démb daanaka yéen kaay nu xëyandool ñoom ñëpp moom la ñu xëyee ni ki tey ji Sud Quotidien fësal ci aw xëtam nataalu premier ministre Amadou Ba ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ministre forces armées Sidiki Kaba ak ministre bi yore kàddu nguur gi di Abdou Karim Fofana journal bi na ñoom juróom ñi la nguur gi yabaloon ngir ñu leeral gannaaw manifestation yu metti yi xewoon ci réew mekk njombe yi mu jural réew mi le soleil benn fan jàpp ñaari fan ci weeru juin bi ñu weesu la woon tey itam na mbir mi demee état bi leeral na ko leeral lépp ba leeral signal Walf TV bi ñu dagg ak la ko waral ñaaw teef yi amoon ci réew mi liñ fi te lu tax ba fii tribunal tëj Ousmane Sonko te demul kaso ba ci tabaski gi jub si lépp la soleil national nee na nguur gi andi na ciy leeral bés bi le jour duppee ko équipe de kom boo xam ne ilimaani jëwrin yi di Amadou Ba moo ko jiitee moom premier ministre ne nguur gi jël na bépp matuwaay ngir ñu bañ a salfaañe réew mi te itam taxaw temm ngir jaamaarloo képp ku ko bëgg a def Sidiki Kaba di jëwrin gi nu dénk forces armées tontu maître Juan Branco ak képp kuy wax mbiri yi di cour penal international naan dañ fa yóbbu nguurug Sénégal ministre bi jàppe ko waxe ndaxa sa kandang te naan CPI cour pénal international du noonee lan fa yóbbee nit te ñu koy wax defuñu lu dul bëgg a xoqatal ak tiital suñu takk der yi waaye jëwriñ ji ne loolee du jàll le témoin moom moo tuddee Amadou Ba général boo xam ne dafa ànd ak ay ministre am ngir génne joxe seen kàddu ci manifestation yi fi amoon ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall ne Ousmane Sonko ba tey ay mbiram yoon na mu cay doxe rek la ci war a doxe ndax nag ba fii jotunu génn kayit goo xam ni man naa tax ñu teg ko loxo moom Ousmane Sonko enquête yéen kaay ne nguur gi daal wax nañ réew mi quotidien moom li mu gis moo di gars yi ñoo ngi ci yoonu teg loxo Ousmane Sonko Walf Quotidien ci kàdduy Ismaïla Madior Fall Ousmane Sonko mënees na ko koo attewaat waaye dafay fekk yoon teg ko loxo sursu aane ñaari waxtu la nguur gi jël di ca wax ak leeral fitna yi fi amoon Antoine Félix Diome ne li leer te wóor moo di vidéo yi jaar ci réseaux sociaux yi jur na coow ku xalaat waaye nag yoon rek moo ko mën a leeral Amadou Ba ci Le Quotidien képp ku laale ci fitna yi fi amoon yoon dina ko diggaaleeg yow L'As Quotidien gouvernement bi daal ci offensive dëgg la ñu nekk Bougane Gueye yi ci Tribune yéen kaay ne monte nag dara lu leer waxuñu ko fi te itam li ñu wax kenn la yayul njiitul gëm sa bopp yokku ca ne vidéo yi fi génnoon moom ñëpp ko gisandoo te itam nguur gi mënta jaar fenn ba wax fi lu tekk li askan wi gis Direct News lu ci mën di am daal nguur gi artu nan ba noppi di leeral Les Échos ne daanaka nag lépp Ousmane Sonko lañ ko ji ligne lii quotidien Amadou Ba ak ñoñam dañoo décider faire face face à face bi ñu doon amal démb l'observateur moo sur moo la ko duppe yéen kaay groupe Futurs Médias bi boole ci jox kàddu gi ay expert ci wàllum communication Jean Diatta di docteur en communication ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru ne li mu gis moo di nguur guy leeral fitna yu amoon xel ñaar mu yokku ca ne communication itam nekkul rekk ay parole waaye at yi ngay def itam ca la bokk Mamadou Sy Albert ci biir yéen kaay bi ne kàdduy nguur gi dafay wane ne mbirum Ousmane Sonko jeexagul itam am na luñ cay waajal magi Pastef ñoom li ñuy waajal moo di dem yëkkati barikaat ñu tekk buntu kër Ousmane Sonko ci bés bi le jour magi Pastef yi ne nañu baaree kër Ousmane Sonko du dëgg te du yoon te itam mbir la moo xam ne dañ ko war a dakkal ci ni mu gënee gaaw magi Pastef yi yemuñu foofu di sàkku ci xalu généraux yi nekk ci réew mi ñuy wax ak njiitu réew mi fi nekk di président Macky Sall maître Abdoulaye Tine ci Vox Populi ne ñaari fan la may nguur gi fi nekk ñu teggi barikaat yan teg buntu kër Ousmane Sonko lu ko mooy dinañ def li leen yoon may yoon may na liberté fukk ak ñeenti mbaam yu bois sacré yi nu jàppoon l'observateur ne liberté sous la leen Maham Diallo def gannaaw ba nu lànkee takk bracelet électronique yi libération yéen fukk ak ñeenti femmes yu bois sacré yi article 80 moo leen di yoot article yi yoot waa ji nekk ci l'observateur narta sedd journal bi ne ca saare gaayo ga ca Tambacounda la xewe benn waay moom la fa yoon jàpp ndax dafa rey jabaram Cees la jóge ndax dañ ne ko jabaram da koy njaaloo ak beneen waay bu nekk ca dëkk ba tax waa ji topp xaaju guddi dem ca dëkk ba